génnee rek ma déglu waaw si soo keneen gi. waaw yéegal waaw xaaral kii waaw yéegal foofu. yéegal yéegal. maa dafa la almal. waaw xool ma waaw. du raas. maa dafa la almal. Kaay nii kaay nii. waaw xool ma maa ngi taw waaye am nga ma si. waaw xool ma. Haji Ba Mal yàlla na gaaw ñëw sa amiin amiin maa ngi ne yàlla la yónent bi teew fi nga nekk barke Serigne Saliou maman Kine yàlla la yonent bi teeru fa nga tëdd sa soppe maa ngi nii ñu ngi nii ci sa bërëbu soppe ba. jëwriñ yàlla na la yàlla defal jàmm. amiin amiin yaa rabbi amiin amiin amiin amiin délégué. taxawu Sénégal wali balaa yal na la yàlla sàmm ci barke Kaabatu Rasul na la yàlla gën a taxawal yàlla dimbali ci barke Kaabatu gën a yal na la yàlla dimbali. taxaw taxaw taxaw taxaw Thank you.

Здравствуйте. Oi, oi. నమస్తే హర్యానా పంపు الهدى والسقى والعفاف والغنى اللهم اصلح لا تبينا عذاب النار وادخلنا الجنه الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا على الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أصحاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا جواد كريم كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا برحمتك برحمتك يا ارحم يا ارحم الراحمين الراحمين اللهم اللهم هب لنا ذرية ذرية yàlla na fi yàgg yàlla na yàlla sàmm maa ngi ñaan ci barke bi yonent bi yàlla nga yàlla nga yàlla nga gudd fan ba man daal maa ngi ñaan ci barke fii ma nekk di kaaba gi di màkk yàlla li des sama yaat na ko waaj a jox la ko gudd fan ñaan naa ko ko dogu naa ko na ma ko defal yàlla nga gudd fan yàlla nga gudd fan yàlla nga fi yàgg loolu ma defal li dafa rëy loolu yàlla nga fi yàgg na nga fi yàgg te wér rek dinañu jégal na nga fi yàgg te wér yow yow bu la neexee sax bu la neexee sax bu ko gars yi critiqué waaye bu la neexee ba ñu a woon lii nga def rek dafa rëy barke leeru alxuraan yàlla na la yàlla sàmm am naa mbégte de am naa mbégte lool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 لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة آمين آمين آمين jëwriñ yàlla na la yàlla defal jàmm. amiin amiin yaa rabbi amiin amiin amiin amiin délégué. wali bala yàlla na la yàlla sàmm ci barke yàlla na la yàlla a taxawal yàlla na yàlla dimbali ci barke sama yaay yàlla na fi yàgg te yàlla na fi ñëw ci barke yonent bi sama yaay yàlla na fi yàgg te wér mboolem jullit sama yaay yàlla na fi yàgg te wér sama yaay yàlla na fi yàgg te wér Cheikh Amar yàlla na fi yàgg te wér Cheikh Amar yàlla na fi yàgg te wér jërëjëfati Serigne Touba Waly yàlla na fi yàgg te wér yàlla nga wér yàlla nga am kàttan Waly Waly yàlla la yàlla sàmm Waly yàlla la yàlla sàmm sa ñaari waajur yàlla na yàlla yóbbu ci àjjana yi gën a mag xam naa ñi nga ci wetu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam jërëjëfati Serigne Touba Xaadimu Rasuul Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg te Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér jërëjëfati